salaamaaleykum wa rahmatullah waaw man maa ngi tudd Talla Diagne maire di Thiénaba euh, jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax euh, xam naa di ñaan yàlla rek yàlla dolli noo dimbali te bàyyi nag sunu xel euh, ba mébét yooyu lépp yàlla àntul ko yaakaar naa ni diggante fi nu jëlee commune bi ak fii ñu koy wax mi ngi fi ñu toog tey mi ngi toll ci dix-huit mois. Eh, boobaak léegi nag euh, mébét yi bari na waaye jéego yi it bari na eh, li nga xam ne nag moo doon sama mébét mooy soqali commune bi eh, àggale yaakaar yi nga xam ni moom la population bi am ci man def nañ ci nag ay jéego yu am solo xam naa nag euh, li ñu soxla lépp saafaraagul lépp waaye am na ci loo xam ne mu ngi commencé saafarawu waa bi ci jiitu mooy xam nga ni Euh, depuis Sénégal am indépendant ak léegi euh, diggante Bangaaj ba jaayaan ñi ngi bëgg courant mënuñu ko am kooku yàlla dogal na sotti na waaye ci sunu moomeel la sottee waaye nag ci yéeney président Macky Sall waaye ci xareñam waaye ci ak jàppaleem gi muy jàppale kaw gi euh, xam nga ni it sama commune bari na ay mébét yuñ fi def ci wàllu ay piste yàlla dogal na ci 2016 bi am nañ yaakaar ni piste bi nga xam ne moo gën a tar gën a taxaw wala muy ñaar bokk yàlla dina ko antul ndax ci PDC bi programme nañu jaayaan bangaaj euh, programme nañu canaba bangaaj bangaaj ndindi aan ndindi aan jaayaan waaye jaayaan kéel programme na nañu it euh, kër Ibra Gueye jaayaan ba Fandène te suñ tuddee kër yi bëggee jaayaan ba Fandène sunu xel dalay dal ndax kenn ku ne xam na ni pamu Fandène bi nekkul ci sama commune waaye sama commune ñoo ci ëpp lu nuy jariñu te pom boobu bu xisee taw lu baree bare bare dina yàqu ci sama commune ndax fi la marchandise miy jaar di jàll te deetu ñu mën a dem e, kon waaye loolu jàpp naa ne état bi dégg na ma waaye état bi it mi ngi ma teg bët kon yaakaar naa ni loolu moom ci mille 2016 bi li ñuy jëkk a def loolu defe naa mbay loolu ci lay bokk euh, waaw pomme yoobu aman naa ci mébét yi rafet ndax kenn ku ne xam ne sama bis 2014 am na 5 millions yoo xam ni génne woon nañ ko pour ñu war koo def foofu ci pomme Fandène bi wala jaayaan sërif loo waaye bi nu ko seetee 5 euh, million yi Eh, bu duggee foofu la mu fay jariñ du bari waaye am na ni yaakaar nag ci kàddu état moom état moom dina ko defar loolu moo taxan ñu defar diggante Cherif eh, ak jaayaan benn appartement boo xam ne nii eh, yàqu-yàqu ba bari woon na waaye it bi ndox mi dikkee nga xam ne ndoxum ren mi ku ne xam na ni mësul am bari na lool waaye ba mu dikkee lan defaran lépp da koo bombardé ba fi ni toll am na fa sax camion yoonu nu sotti woon yoo xam kenn jotu koo tas parce que boo ko tasaayee ndox mi da koy yóbbu. waaw wàllu ndox moom euh, ci sama commune ñaari dëkk rek ñoo fi des yoo xam ne nii eh, amuñu ndox mooy fu nuy wax mbëyeen ak kër xaar jéey te problème mu mbëyeen réglé wu na ndax. programme naa ba nu jënd matériel bi war a branché kër Yoro Sadio ba Mbayeen ba entrepreneur bi tabax na borne fontaine bi ba pare mais bi muy bëgg a commencé nag la waa plan ñëw may ma benn forage te defe naa ni forage moo ëpp doole ngay dem di xëcc ab tiwo ci forage bu mel ni forage su jaayaan nga xam ne na ba kër Yoro Sadio mën naa am nga am gàllankoor montagne yi ni muy demee loolu moo tax bi ma baa plan mais benn forage mag jagleel ko waa mbayeen te su dikkee mbayeen doon mbayeen rek juróomi village mbayeen xërkaar ji mbaaba faal ak mbaaba jóob ba xay ñoom ñëpp mën nañ ci branché te yaakaar naa ni naan rek du ko jeel euh, li nga xam ni moom la ñuy def di ko gas ci ay teen bu forage amete foofu kenn deetu dem di gas ay teen dañuy branché ci forage bi man di bay noor di bay nawet Mhm. mais dafa loolu waaw loolu des na lool des na lu baree bari ndax euh, boo ko seetee euh, trente-huit villages yi ak euh, vingt-trois hameaux boo ko seetee day daante nekk soixante onze villages soixante onze yooyu nag presque quatorze rek wala treize moo ci am ndax bangaaj dix la woon bangaaj di ko dolli ko ci ak dal jàmm ak jaayaan Eh, kon dese naa cinquante que cinquante sept mais ci cinquante sept yooyu li tax ma doon cinquante sept programme nañu euh, euh, Kër Mbaye Guèye euh, kooku incha allah bi ci 2016 bi des na ko samp programme nañu Mbambara programme nañu Kër Assane Lo même Ngomen Balla wax nan man mi accordé nañ ko mais liste bi nga xam moo ñëw ci sous-préfet Ngomen Balla bokkagu ci Kër Assane la ak Mbambara ak Kër mbay Guèye Euh, waaw xam nga euh, euh, daanaka li nu am yombul ñu am ko sampal la ay poto ci at mi lonkal la ay fiil ci at mi taalal la ko ci at mi yombul te ñun loolu la ñu état defal courant bi dina dugg ci kër yi parce que ñu ngi monter potelet yi. ñi ngi monter compteurs yi yaakaar naan biir bu gàtt euh, kër yëpp dina am courant ndax euh, jaayaan lañu jëkkee pare nanu euh, biig fanaani nanu dal jàmm suñu jógee dal jàmm ñi ngi jóge ñi jëm bangaaj kon ci wàllu courant bi war a dugg ci biir kër yi kooku moom c'est réglé parce que matériel bi yëpp ngi sur place. waaw message bi moom moo euh, ñu gën a euh, sant yàlla bu baax waaye ñu gën a dal waaye ñu gën a doylu ndax nit bu fekkee dangaa am loo mësta am eh, boo dee nit sam xel day dal waaye boo nit yi da ngay dangay dangay da ngay dal ndax président bu mel ni président Macky Sall euh, Sénégal mësuñu ko am ci li ma yaakaar ndax man sama gis-gisu bopp laa yor li nga xam ne moom laa xalaat loolu laay wax président bu mel ni président Macky Sall ci kaw gi amul benn président mu fi masa toog boo xam ni muy doxalee yaa ngi koy doxalee kon su yàlla dogalee ma war a joxe message ci pour population bi dama leen di wax ni leen euh, nanu ànd ak dal te teylu tey déglu kilifa yi tey déglu nag ñi mat a déglu ndax wax ñu moom bari na waaye wax bu baree te ngay capter lépp da ngay dem ba jaaxle. waaye soo dee déglu nag di déglu ki mat a déglu di déglu koy defar bañ a déglu koy yàq yàlla mën na laa dimbali doo juum te it nag eh, am naa yaakaar ni eh, xaw ma ban commune mais sama commune bii ma nekk muy commune ba lii nga xam ne mooy mébétu président ak lim commencé def yaakaar naa ne bu yaakaar yàkkikuwul xaw ma ban commune lay ñàkk waaye doon du doon sama commune. carrière bi te xam nga ne carrière bi li war a liggéey ci commune ba mënu koo yore. yeneen koom-koom yi li ci ëpp mooy mbay te bu nawet tarfatee lu néew néew eh, day mitti waaye nag ci sunuy pexe eh, ak sunuy relation fexe nan ba état indi ñu benn ferme agricole bu vingt hectares boo xam lu bon bon mën na jël eh, ñetti téeméeri nit ak ñaar fukk te loolu su amee xalaat naa ni koom-koomu ba dina gën a yokk waaye nag du ñu yem foofu rek ndax jigéen ñi nga xam ne nii eh, eh, même foo foo mën di dem ak foo mën a jóge soo dee jënd ndaamaraas danaa ndaamaraasu Thiénaba te ndaamaraas boobu eh, gàllankoor bi ci am mooy jigéen ñi lanu war a jàppale maa ngi ñaan chef du village bu nekk bu doon benn hectare ñu jox ko groupement yi nga xam ñoo nekk ci village yi ñu samp fa ay garab diirum ñetti at rek Euh, bu ko yàlla dogalee dina mën a faj seen soxla su boobaa koom-koomu ba euh, day gën a yokk euh, waaye duñ ci yem ñu ngi ci suñuy pexe wuti ay partenaire di jëflante ak ñoom lépp lu andi am andi ko ci commune bi kon defe naa ni koom-koomu Thiénaba fi ñu koy jële ay xalaat la waaye ay pexe lay doon waaye bu doon carrière bi rek ba nëgë ni suñu commune taxaw na. sa parti mooy APR. est-ce mhm. que na taxawaay boo xam ni war eh, jërëjëf eh, ci wàllu politique eh, man maa ngi APR nekk maire nekk maireu APR waaye ci taxawaayu parti bi xam nga damay wax ni saa boo demee élection jàpp ni couleur politique. ma couleur parti mooy gañe da ngay nax sa bopp nit ki mooy gañe mais du couleur parti mooy gañe bu fekkee ne woon couleur parti mooy gañe kon fii du ma fi nekk maire tey parce que may may dem élection demuma couleur APR dama ber sama yoonu bopp mais ba may ber sama yoonu bopp xaman naan damay gañe parce que sama population euh, fi laa dëkk ñuy samay mbokk di samay xarit di samay dëkkandoo mais aman naa confiance ci ñoom ni fu ma jëm deen ànd ak man loola confiance boobu ñu amoon ci man nag te yàlla dogal ma topp ci ginnaaw président Macky Sall di ko jàppale confiance boobu ba léegi jógu fi insa bi même dama ne élection toujours may wax ni xaw ma élection 2016 xaw ma 2007 xaw ma 2019 même élection bu doon suba sama commune dama koy gañe parce que nit ñi fi nekkan ba léegi jógunu fi mais ña gore woon ba léegi ñu ngi gore te dinañ ma jàppale insa bi fu ma leen ni foofa la rek fa doon waaye yal na yal na doon nag fu neex nit ña waaye yal na doon fu doon dëgg parce que nag di gëlëmal nit ñi di leen dugal foo xam ni euh, du dëgg su boobaa même boo ci amee ndam tey bu subaa ci am ndam. Ah, APR. APR a neex nit ñi fi tase mhm. waaw tase na ma ak Siré Dia mais Siré moom moo ma woo. moo ma wax ni dafa xool ci net bi. ma wax waxu dëggu. boo xam ni nit ku dëggu noonu lay mel ma doon la siwër nag doon la dégg moo tax ma sàkk sàkkuwan pour maag yow ñu tase tey mais sunu waxtaan lépp génnul département Kees nan la ñuy def ba président gañe département Kees département Kees ñun maire yi ñoo ko mën a gañe dama wax ni maire bu nekk na mu def ba gañe département am bu toppee ci gar président Macky Sall dina ko gañewaat teg ko ci loxoom loolu moo tax ma ne yàlla mi nu bind rek moo mën a tee ñu gañe département Kees parce que maire yi nekk département Kees ñun ñëpp benn lañu ñu ngi tase di waxtaan euh, te suñu waxtaan yëpp mooy jàppale président loolu nag président moo nu ci mën a dimbali parce que amul benn responsable politique boo xam ne nii mën naa déplacer fa mu jógee ñëw sama commune fexe fexe koo gañe te man ànduma ci te noonu ma mel ci sama commune nag noonu la maire yëpp mel ci seen commune kon li ñuy ñaan mooy président woonu ñun maire yi ñu toog waxtaan ak moom teg mbir mi ci aw yoon. ñu xam ñun yan point la ñuy jaar ba gagné département bi mais gagné département bi du dara lu dul bëgg-bëgg nit ñi nañ ko président defal rek ñun du ñaan gaasuwaal du ñu ñaan lu ñu def ci suñu poos mais lu jëm ci population bi lépp lu jëm ci wàllu piste wala mu jëm ci wàllu courant lu ñu ci président mën a jàppale nanu ci jàppale ñun loolu mooy suñu campagne kon jàpp naa ni euh, département Kees ñun maire yi dinañ ko teg ci loxol président waaye sama gis ak Dia paase wuñu foofu foofu lan commencé foofu lan yem nan la ñuy def ba gagné département Thiès parce que nag responsable yi bari na waaye saa bu ñu demee élection ñu perte département Thiès kon nag lay tax ñu gañawaat département Thiès ñun responsable yi nga xam ay maire lañu ñoo mën a fexe département Thiès président jot ci waaye du benn responsable politique mën a jóge ci àll ba ni président mën naa koo gañe ku ko wax di nga juum